tey kon yow la ñu dalal sëriñ bi ñu fàttali nag ni euh, yow itamit euh, doomu daara nga. Mm. sëriñu daara nga. Mm-hmm. amit ci looy yëngu. Mm-hmm. tey ñu bëgg a waxtaanee actualité. Mm-hmm. mais balaa loolu kii seetaan bëgg na xam sëriñ Moustapha Dramé. xam nga dañuy gis sëriñ Moustapha Dramé. Euh, tradipraticien wala ñaankat wala wala wala. mais bëgg nañu xam sëriñ Moustapha ci fan la dooree. njàngum daara. sëriñ Moustapha Dramé mooy kan ci wàllu est-ce que jaar na ci ay métier. Mm. xam nga lay waaw. man bi ma dama judd 1987. 87 87 laa judd. ok juróomi at laa am. Mhm. dal jàng. Mhm. parce que li war a ma teel dal jàng ci cinq ans. Mhm. mooy dama judd fekk sama papa nekk imam. suñu village. ya fa daari alxuraan ki ne mag ca tund wa. kon kooku da nga ci doomi daara. waaw ñu namp teere la daara. bi ma judd dal jàng mu yëpp ma ci jaamal. ku ñuy wax sëñ Modou ma si bu jaamal ku amoon barke la muy bon mu ci moom pour man ma am barke ba mu demee mu ne ko dama bëgg rek nga barkelul ma ci moom mu dal ba ci mi mu dalal ma jàng mhm. kooku bind ma sama ji wassalaamu ala sayyidina Muhammad mhm. bind bismillahi rahmaani rahim ne mhm. ma waxal ma wax mu bàyyi jox ma sama papa papa mu yëpp ma daaraam jàngal ma baa ma fer mu jàngal ma ijji mu fer mu jàngal ma ma tollu sootu xaafari man wajaa xaw mi fekk sama papa am na rek ñu bokk ndey ak baay. Mhm. mu yóbbu ma Jurbel. deux mille. Mhm. mille neuf cent quatre-vingt-sept bi bi aviation baax di gaañu. Mhm. boobu laa njëkk a génn sama kër papa booba maa ngi am fukki at yaakaar naa ne dem Jurbel di jàng. ci sama rek papa bokk na baay ndey ak kooku moo ma yor nag ma jàngal Alxuraan ba deux mille ba quatre-vingt-dix-neuf. mu bëgg a ñëw Kaolack pour yokk jàng xam-xamam. bi muy tuxu si ñoom indiwaale man ci laa bokk. mu indi ma Kaolack moom it jàngal ma jàngal ma ba ma ba ma waaye wàcc. Mm-hmm. après man it ma mu commencé métti xam nga jàng. waaw boo commencé fàttali wala yooyu teel a suuf teel a ko day metti waaw da ngay daw bu yàlla dimbaliwoo sax sa njàng mën na fa yàqoo. Mm-hmm. ma nekk di daw rek di daw bi ndorong saam di traverse rek. bi mm-hmm. ma jàpp indi ma dawaat. mi jigi ñu jéng ma. bu ma jéngee bu yàggee bu buñ buñ jéng jéng rek. su ma jukkee nga jukki moo ko ma dawaat. dawaat dawaat <laughs> mu mujj wax sa papa nag léegi kii ko yoon mu ngi daw. ma di laal la ko. d'accord mu delloo ma sama papa deux mille deux mille deux mille deux. mi mhm. même sama deux ans mhm. ma gis ne daal man ku a jàngi laa a xam laa. Mhm. ma daw. nga dawaat encore ma dawaat dem Diourbel jàngi. bi bi ma dem jaar bi jàngiwaat encore. 2003 sama papa yëgul ma dama xëy yëg ne ko war a jàng laa ko war a xam laa. ma dem jàngi. Jurbel laa jànge ba yàlla may ma ci alxuraan ma ci may. may ma a bind ci alxuraan ma bind ko ci alxuraan. may ma tamit après ba ab diir ma ñu suba sama daara bàyyi Kaolack. yor daara ji. di jàngale alxuraan ci daara ji. di jàng xam ci daara yi ñu wër. di dem ci Mahab mooy école nas rajo Dama Niass. di fa jàng ci école bi. d'accord fa la nekk ba 2011. ma ma ma jógee si daara ji ma bàyyi daara ji complètement daal di jàngal ma bàyyi ko sama rakk mu bokk ndéeg bàyyi ak ñoo bokk bàyyi. dem Tivaouane. ci daal sa moto ji ngay dégg. nekk foo ñi tey ka fa muy Hadj Mor Sow. Mm-hmm. ne fa nag di jàng xam-xam pour yokk sama yenteel xam-xam yi. fa laa nekk ba mm-hmm. ma bàyyi ko fa dem dafa armée. Ah, jaar nga armée. waaw ma dem def waaw le premier janvier 2013. Mm-hmm. laa bàyyi njàng da daara ji jóge Tivaouane carrément ci daara ji. mu def armée. d'accord def naa fa. ñu formé ma Dakar ba noppi indi ma Thiès ba beneen di bu Thiès. waaw ba ma ñëwee mois formation. ñu yëpp ma mm-hmm. ma def fa 15 mois ñu dellusiwaat ma Ziguin euh, Thiès. Mm-hmm. après ma indi indi ma Bargny. Mm-hmm. ma def formation électricité bâtiment pour su ma libéré. am métier am diplôme bu lu ma mën a ma jàngalu ba pare nag ma ñëw kon da gis ne. diiru 30 ans yi ma dund. ñaari at dong laa defu ci daara mooy ñaari at yi ma yi ma def armée. d'accord moom nga deful daara. moom rek laa def ci yëpp yaa daara. li ci yëpp maa daara. kon nga gis ne. macha allah doomi daara si jàng si. macha allah ba tey ji ngi toog nag. <laughs> macha allah jërëjëf biographie bi am na solo ci hmm. taxawaay boobu fi nga jaar ci daara. Hmm. ba ñëw def armée hmm. kon wane nga ni daal ci ñaari at ci ci 30 ans yi. Euh, ci nga defut ci daara mooy. armée nga demoon mu ñaari at yi 2013 2014 rek laa deful laa deful daara. d' accord keroog ba ma libéré daara laa dul si waat. d' accord léegi bala ñoo ñëw ci waxtaan wi sëñ Moustapha Dramé ku ku pànk la ku bari ay la. Euh, yow ñaar ba ñett nga jotee xaas. jotee borom euh, kii ma kii. Mara Niass. waaw gone gi Niass. waaw gone gi Niass maanaam yow ñi ngay joteel bari na trop sëriñ bi yow la wala lan la. waaw du du du du du du bëri affaire. lan la ñu fekkee ne réew bi boo fi nekkee. Hmm. dafa am lu muy hmm. boo maslaayee. Hmm. ñu maasale la. boo dëggoo. te pànkoo. ñu dëggate leen. te ñiy dëggate ñoom ñooy ñi ñu war a maasale waru leen a dëggate ñoom ñu mujj leen di dëggate yow bi dëggu. Ah, d'accord. fekk demeewul noonu nag. ñu bari dañ ñaan yow rek yaay jotee ñoom. waaw mais parce que li ko waral hmm. man da man dama teel am dafa am ma teel a gëm. Hmm. teel a gëm ne. ndagaaru gii am fi xarit yomb. Dakar am am fi àndandoor nag yomb na. Hmm. ma teel a comprendre nit ñi. ma teel a bopp. bëgguma am kenn si ñoom affaire. ok waaye nag ku yàlla nattu nga am jafe-jafe. ma ñëw taxaw ba nga yëg ne. coow li may am ak yow du bañ la waaye jamono la waaw parce que man gis naa xaas di tudd mhm. nga dem fa Cheikh Bara Ndiaye nga dem Mara Niass nga dem mais dañuy jékki-jékki rek sañ sëñ Moussa Dramé daal yow dafa mel ni amoo xarit day jékki-jékki nga mel ni du yow kere bi ma toogee daal seen kaw ba mu neex kere ma toogee ci ngénte xaas ga waaw dama toog journaliste yi ne ma waaw yow yaa waxoon ne diw ak diw dañuy di forcé te ba léegi ñu ngi sëy ma ne génn ne fi ma ko waxee d'abord ba pare waaw ñaar bi sax ma ne ah, loolu yow waxoo ko woon waaw fekke mhm. dafa am lu ma waxoon. Mhm. waaw mu tey soin bu. waaw communication dafa sew. Mhm. mën naa wax dara ba ñëpp ne man xaas lay wax. te tudd ma turam tudd ma santam. bis bu ñëwee wax bu dëppati sax boo demee yaa waxoon rek may la laa ko waxee. ah d'accord la laa doxoon. ko. génne ko waaw. <laughs> boo mënul génnee comme ñu avancé ci leneen. may leen ca ngénte ga ba fi ma toog nii. suba su ma xëyee te xaas mi def naka si du noonu wala ñu am lu ñu wutee ma xëy jàmm ak ma bañ a dugg dégg man am problème boobu. d' accord d' accord. yàlla nattuñu nag ñu ñett ñëpp. Mhm. ma xëy un jour. Mhm. am ak xaas am ak am ak am ak guni gi guni gi ñaas problème. waaw mooy bi ñu ko jàppee. de maam moom dañoo a dafa avant ñuy am relation. Mhm. maam moom dafa am fu ñu jaar. moom moom it ni ma ni ma def saa rek. waaw bëgg a yéeg na xaar ma jaar ci man di kii <laughs> ñu am fu ñu jaar. kii ne boobu xaas na ko non non non doogu tëj xaas na ma doogu tëj du ngeen dem fenn xaaj jàpp ci ba loolu échec. waaw xaas bi yaa natt ko. waaw <laughs> ak quelques mois ñoom ñooy ñu am problème <laughs> mu bëgg ko tëj ma ne ko yooyu doo kon yéen a am jafe-jafe. maa xaas ñëw jàpp ci. maa xale gi sant guñu gi sant ñaas. Mhm. ñoo njëkk am problème. ba nga yóbbu ko fay. ba ma yóbbu ko fële. Mhm. xaas na ma mhm. du am. d'accord di ci jàpp ci jàpp ci ba loolu échec. quelques mois ñoom ñoo ñu am problème. xam man sama néew ci man. waaw da war a man. <laughs> waaw waaye su ma man ma ma ñëw ne ko xaas. non affaire du jàll de kii da nga ko bàyyi. jàpp ci nag takk ci rëpp. wallaay gis naa <laughs> ci laa gis sax defoon nga ci ab vidéo daal ba ni yéen ñëpp. di ngeen taxaw pour mu bañ koo tëj. barke Rasulullah ma ne ko nag bu ajoo sax ñu def point de presse sax nañ ko def. d' accord waaw loolu daal yow amoog nit problème mais jëfam souvent ngay amal problème. jëf ji apte bi. d'